asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures euh, jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale euh, toute la ville en parle dalal Idriss Ba nekk économiste consultant expert de la mondialisation et du commerce international nekk analyste géopolitique économique inter international ñu daal di fas yéene waxtaanee ak moom ponk yi nga xamante ni euh, moo occupé actualité bi di situation bi nga xamante ni actuellement àdduna bi yëpp mi ngi koy jànkoonteel di ay jafe ci wàllum koom-koom li ko waral euh, di Covid 19 bile Sénégal naka la mën a euh, taxawee ci crise économique boobu le naka la ci mën a génnee waxtaanee politique ak démocratie fii ci Sénégal deuxième vague Covid 19 ak tamit vaccin yi nga xamante ni Sénégal jot na si lu toll ci euh, deux cent mille euh, doses euh, récemment daañu ko waxtaanee affaire Ousmane Sonko bi nga xamante ni fi ñu toll ni tamit moo occupé carrément actualité bi daañu ko waxtaanee ak kile di suñ invité di Idrissa Ba ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. Kumba ma lay gërëm di la fay. di leen remercier ci invitation bi. Mhm. di nuyu tous les auditeurs de de Rewmi FM. Mhm. et puis voilà di la ñaanal yàlla suñ borom bi dara wul sàmm leen ci événement bi xew bi nga tudde léegi. Mm-hmm. yàlla musal ci waaw musal ci Sénégal yëpp. Euh, voilà donc euh, maa ngi tudd Idrissa Ba nekk économiste di saytu koom-koom bon du ci gëstu et puis bon du ci aussi fas yéene wax li ma ci xam. Mm-hmm. donc. <laughs> voilà mi ngi noonu dañuy attaqué carrément euh, sujet bi euh, di situation économique bi nga xamante ni moom moo am actuellement parce que bu ñu waxee euh, Covid 19 c' est un problème de santé mais dafa nekk problème de santé boo xamante ni dafa paralyser pratiquement tous les secteurs dans le monde rawatina koom-koomu réew yu bare bare fi ñu toll nii am na ay jafe-jafe yow en tant que économiste comme ni nga ko waxee léegi sa xam-xam màcc ci wàllum koom-koom ban jàngat nga am ci jafe yi nga xamante àdduna bi sax laa wax ñu ngi koy jànkonteel ci wàllum koom-koom ak lile di Covid 19 bi euh, ban analise nga ñu ci mën a defal. Euh, très bien euh, analyse bi ñu ci def mooy xam nga Covid 19 bii ñëw. ci science économique boo koy jàng ci théorie des anticipations mhm. ci dañ lay waxee ne que booy looy mënti def rek na nga séntu maanaam futur mhm. na nga xam lii xew ëllëg mhm. neexul a xam nag neexul a xam parce que le futur moom la ñuy wax l'incertitude mhm. kenn mënul wax a priori que ëllëg dana taw wala du taw yàlla rek a xam mhm. loolu mooy jafe-jafe bi donc euh, ñiy def ay anticipation ak di planifier toujours mhm. dañuy bàyyi xel ci un facteur wala de facteurs yoo xam ne yi di euh, économiste anglais bi doon wax euh, Colin Clark ne le quatrième facteur inconnu dafa mel ni que moo ñëw ci àddina bi parce que personne si s'y attendait kenn séntu ko woon ci Covid 19 kenn xaaru ko kenn xaaru donc bi mu ñëwee dafa perturber économie yàpp yàpp yàpp yaa xam réew mu développé nga yaa xam réew mu nekk en voie de développement mhm. donc ñëpp la perturber mhm. ce qui fait que maintenant dañuy commencé waat lépp lu nit anticiper woon mhm. anticiper woon daf koy reprendre à zéro day anticiper waat en tenant compte maintenant de ce paramètre qui est là qui d'actualité c'est-à-dire la pandémie nga xam ne léegi il faut réajuster régler encore équilibre bi nga xam ni mu ngi fi woon. Mhm. te newatu fi. donc ci ni ñu ko mën a expliquer rek boo koy xool au fond au fond avantage la pour pays yi nga xam ni développé wu ñu. Mhm. par rapport aux pays développés. ci naka ci naka mooy maanaam. dafa mel ni que actuellement dañu rangale pays yëpp. Mhm. ci même ligne de départ ñoo ne di tàmbali fii. ngeen demaat. yéen ñëpp yéen a yem parce que euh, seen euh, seen économie yëpp. yëpp moo perturbé. Euh, yaa xam pays bu développé nga yaa xam pays su développé mhm. mais ñëpp ñoo nekk sur la même enseigne. maanaam dafa waroon permettre les pays sous-développés. ñu mën a relancer wu économie bi voilà rattraper bi ñu amoon par rapport aux pays. parce que ñu am nañ problème. am nañ problème am nañ problème. Mhm. seen économie yëpp a rës. tey boo demee France tey mais France euh, li mu tane Sénégal bariwul. chômage yi nekk ñi ngi nekk ci chômage. Mhm. kenn liggéeyutul. Euh, économie bi daanu na. bon ñi doon ko seen fayeeku léegi ñi nga xam ne ñii bon à part nekk administration mais ñu newoon dans le privé. Mhm. seen seen fayeeku waratul. Euh, yaa ngi may comprendre. Mhm. ñu bari ñu leen di yóbbu en chômage technique. ñu wàññi réduire les temps de travail. Mhm. ku doon liggéey bon vingt heures par jour léegi boo moytuwul dix heures ngay liggéey donc yooyu dafay impacter sur l' économie sociale. et au niveau des revenus, mmh. des pouvoirs d'achat et des pensions. Enfin, pas des pensions au, sens classique, large du terme, mhm. mais sur les pouvoirs d'achat et les revenus en quelque sorte. Ce qui fait que donc, c'est une opportunité, bon, c'est de perception. Mhm. boo xam ne pays développé yi. waroon nañ ko saisir. waaw non mhm. non pour les pays non les pays sous-développés. sous-développés voilà tey fi ñu nekk nii boo xool Sénégal économie boo xam pendant un certain temps ñu doon wax euh, une croissance qui atteint entre six et sept pour cent. Mm-hmm. mais tey bu ñu waxante dëgg croissance boobu ndeyootu fii. Mm-hmm. parce que liggéeyatuñu. Euh, secteur yi doon produire. Mm-hmm. presque daanaka ñëpp dañu nekk au ralenti. donc bu ñuy wax maanaam en terme de croissance fii ak un an deux ans trois ans il faut s'attendre à une croissance de cinq deux pour cent au maximum. parce que c'est ça la logique des choses c'est une réalité que tout le monde vit am na ñuy wax Idriss euh, comme mm. ça nouvel ordre mondial économique maanaam xam nga euh, y avait les y a les grandes puissances ñuy wax ci Covid 19 bi sax mhm. euh, boo moytul mën na am beneen kii dem nañ bay wax ni peut-être est-ce que Chine du mhm. nekk première puissance ainsi de suite parce que gis nañ ni ay États-Unis am nañ problème te nga ko léegi France Allemagne ainsi de suite les pays d'Europe ñu première puissance. naroon naa ci ñëw. waaw euh, au cours du développement. Mhm. cela veut dire que léegi Covid bi dafa ñëw indi ay perturbations mais indi encore obligation c'est une obligation. Mhm. de repenser le monde autrement maanaam. Euh, dafay obligé maanaam àddina si changer politique ni mu doon doxee. Mhm. avant Covid bi lan moo amoon le nouvel ordre mondial qu'est-ce que c'est. Mm ordre mondial analyse bi dana xaw a gudd nag. Mm-hmm. Euh, ça part du principe euh, de l'application du consensus de Washington 1980. Mm -hmm. par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. ils ont mis en avance la politique économique ultralibérale néo-capitaliste néolibérale ultracapitaliste. Mm -hmm. politique boobu baaxul pour les pays sous-développés tels que le Sénégal. pourquoi parce que dootuñu dañuy obligé il euh, y a plus d'investissement dans les secteurs porteurs. de croissance tels que le primaire, agriculture et sous ces secteurs, et l'industrie, second secteur. Mm -hmm. se cantonnent, ils se satisfaisaient uniquement d'une du, euh, politique d'ajustement structurel. Parce qu'ils ont piégé les pays africains ñu dugg ci endettement. Mhm. endettement boobu ñu leen di fay nag pour ñoom euh, loolu mooy doxal seen affaire. Mhm. est-ce que comprendre mhm. et pendant ce temps ñun les pays sous-développés on n'a aucune possibilité de régler le problème du sous-développement lié donc qui va créer du chômage euh, les sous-emplois etc etc et pendant ce temps ñoom ils viennent piller nos ressources mmh. nos richesses mm-hmm. exemple bi ma ci joxe mooy des APE accord de partenariat économique, économique. avec l'Union européenne mmh. et maintenant avec cette pandémie on est obligé si on est conscient nous Africains de dire que voilà li fi newoon yëpp léegi dañ koy modifier on ne va plus aller dans le sens de vos intérêts, mhm. mais dans le sens de nos intérêts à nous. En, prenant un exemple très simple. Mhm. Euh, on a mis à la tête de l'OMC une, africaine. Mhm. les Africains sont fiers parce que africaine, non. Il euh, a des pièges. Parce que OMC, on l'a créé il y a pas longtemps. commerce, international. On l'a créé en Mais de Fognon n'est que un outil politique qui n'est pas scientifique du tout. Pourquoi c'est pas scientifique Parce que le commerce international, les échanges, depuis que le monde a été monde, c'est toujours passé dans un cadre strictement bilatéral. C'est le bilatéralisme. Cela veut dire que le Sénégal a des avantages avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des avantages avec le Sénégal. Mm -hmm. Ils signent des accords pour dire que voilà, tel produit, les ananas, on en a besoin. Mm -hmm. euh, les mangues du Sénégal, la Côte d'Ivoire en a besoin. alors donc bu ñuy importer ananas de la Côte d'Ivoire les droits de douane ils sont minorés ou voire même supprimés inversement aussi pour les mmh. produits qui vont en Côte d'Ivoire mm-hmm. c'est ça qu'on appelle un accord préférentiel suivant deux pays avec un système bilatéral voilà maintenant avec la mondialisation ils ont vu que bon comment comment exploiter au maximum les pays sous-développés mm-hmm. et qui paradoxalement détiennent les deux tiers de la richesse du monde mm-hmm. toutes les richesses du monde sont en Afrique, dans le sous-sol africain. L'or, les diamants, les bauxites, les cobaltes, euh, les zircons, le gaz, le pétrole, j'en passe. Toutes ces richesses sont en Afrique, c'est pas en Europe. Donc ils se disent que ces Africains-là, il faut les retarder autant que possible et qu'ils n'atteignent pas un développement mm. économique et social. Parce que s'ils le font, qu'est-ce qu'ils vont devenir ils n'ont plus de matière, ils n'auront plus de matières premières à exploiter ni à transformer. Les en fait des produits manufacturés et revenir nous les vendre à nous. Mm-hmm. Donc ils vont nous confiner dans une situation d'éternel consommateur et de dépendance économique. Est-ce que vous voyez un peu le jeu mmh. Voilà, donc ce qui se passe actuellement au niveau de l'OMC, on n'a pas besoin d'un système multilatéral pour échanger. On est sous-développé, on a besoin d'un système bilatéral. Et je Mmh. Vous savez, les... à qui ça avantage C'est uniquement l'Union européenne mmh. et, et, certaines multinationales, américaines, mm-hmm. anglophones, machin truc. Mm-hmm. Alors, l'Union européenne applique ce qu'on appelle une politique agricole commune, PAC. Mais elle subventionne des produits agricoles de la en, France. wolof waaw dafay dafay dafay dimbali maanaam béykatu français yi. Mm-hmm. béykatu français yi comme par exemple. Euh, ñi ñiy jënd wëteen wëteen par exemple. wëteen mm-hmm. le coton. Mm-hmm. ñun suñu baykatu coton yi fii boo demee Tambacounda Kédougou machin truc pour ñu bay benn kilo coton benn kilo danañ dépenser au moins peut-être cinq cent francs damay joxe exemple rek. Mm-hmm. pour nit ñi comprendre. danañ dépenser cinq cent francs pour bay benn kilo koton or que le coton culteur français ou belge ou hollandais. moom day dépenser tout juste deux cent cinquante francs la moitié wala sax lu ko gën a néew. Mm-hmm. donc ñaar ñooñu tey boo jëlee seen produit nga teg ko sur le marché international ban mooy gën a cher bi am le coût de production supérieur. Mmh, bien les coûts de production. Mmh. vont être supérieurs aux coûts de production en Europe. Ce qui fait que donc, pour nous, nous prospérer dans le marché international, ça pose un, problème. On ne peut pas compétir et cependant, ils nous invitent, non, venez dans la mondialisation, vous allez trouver des intérêts. <laughs> C'est pas vrai. Ñoom seen intérêt. Seen intérêt. mais euh, Idrissa Ba ci jamono bi nga xamante ni euh, ñëpp d'accord nañ ni. Mhm. Euh, monde bi dafa nekk ci crise économique. Mhm. les grandes puissances ont des problèmes ñu gis xale yi jëm utali encore bitim réew immigration clandestine et tout. Ah. loolu ban jàng nga ci am ak ñoom bu ñu demee foofu lan lañ fa mën a jëlee actuellement nii nii nii. bon jàngat bi ñu ci am. Mhm. immigration boo ko gisee. surtout clandestine bi ñoom ni ñuy demee clandestine boo ko gisee. li tax tubaab yi di ko def. Mhm. dañu appliquer benn théorie économiste bu ñu daan wax Thomas Malthus. Mhm. disciple Adam Smith qui crée libéralisme classique Thomas Malthus moo def théorie sur la planification de la démographie. Mmh. une démographie maîtrisée contrôlée planifiée maanaam ñu wàññi jur ñi jur ci benn réew par exemple. Mhm. parce que dañ moom dafa xalaat noonu ne euh, bu population yu bare. dootuñu am lu ñu leen lu ñu lekk. lu ñu lekk. loolu mooy gis-gisam on n'a pas assez de ressources de quoi de ressources voilà pour gérer toutes les naissances. or oh, que c'est mm-hmm. pas vrai. Mm-hmm. du dëgg sur le plan agricole. pourquoi parce que euh, euh, le monde la planète entière tey boo ko xoolee. Mm-hmm. un cinquième la ñuy bay. un cinquième. sur la surface totale arable de la terre. un cinquième lañ ciy utiliser ci la ñuy bay yaa xam blé gerte wala ceeb wala nu ma ce qui fait que donc am na surface yu bëri yoo xam ne yi kenn laalu ko donc on ne peut pas euh, cette théorie ne peut pas prospérer ay problème de sous-alimentation de survie non c'est pas vrai alors c'était autre raison beaucoup plus mercantiliste que un problème d'alimentation alors pays yi ko appliqué woon yëpp particulièrement les pays européens pays yi nekk Europe Italie Hollande Allemagne bon peut-être France moo ci xaw a échappé tuuti mais tous les autres pays africains yi ko euh, européens yi ko appliqué woon tey actuellement dañu am problème mu liggéeykat. Hmm. liggéeykat pourquoi parce que ñi doon liggéey dem nañu retraite. Hmm. te xam nga l'idéal c'est que booy liggéey ba dem retraite. am ku la remplace am ku la remplace ci fa ngay liggéeyee. lii moo indi problème boobu. Hmm. seen population yi màgget nañu. te amuñu xale yu ndaw yu leen mën a wuutu ci liggéey bi ñu doon def. léegi nag comme mënuñu ko déclarer officiellement. parce que bu ñu ko déclaré woon officiellement. Mm-hmm. waxuma la émigration clandestine ce serait le rush. <laughs> imaginez. Mm-hmm, mm-hmm. ñëpp tout le continent africain. ils se disent donc on va aller en Europe. parce que liggéey baa nga fa. alors léegi nag ñu ne bon léegi on va rien leur dire duñu leen wax dara. nañ leen bàyyi ubbi ay canevas. canevas au niveau par exemple du Maroc de la Libye. Italie pour africains yi jël dem ci géej gi bu ñu échappé ku ci rëcc. Mhm. ku ci yàlla faagaagul ci ndox mi. boo ñëwee bon ñu def semblant. ñu exploité la way wane ci télévision yi gaal yi récupéré ki du kenn du xam nag fan lañ leen di yóbbu. Mhm. dañ leen di yóbbu ay centre de récupération. Mhm. ba ñu noppaliku ñu dugal nag ci tool yi. on va les sous-employer. di leen fay ay salaires yoo xam ne yii duñ ko fay l'ouvrier européen. européen wala voilà donc y aura un dumping sur les conditions de vie ne seront pas respectables en tant qu'homme. en tant que humain. mais ko jàppee esclavage. boo ah, xamante ni mais si mais si ñoom ñu bi tubaab yi doon ñëw. jël yóbbu bële. mais bi africain bi moo yóbbu boppam. moo yóbbu boppam. voilà avec ses risques avec tous les. risques avec tous les risques. xaaj bi des si géej bi ñu yegg rëcc bon ñu dugal leen ci tool yi di leen fay fay yoo xam ni da ngay waaru. exploitation la non seulement exploitation mais c'est le néocolonialisme et le ah le nouvel esclavagisme. Mm-hmm. et puis baaxul. Mm-hmm. baaxul léegi nag. Euh, l'idéal serait que ñu baal ma suñu gouvernement yi. Mhm. ñoom ñu am non seulement matuwaay mais ñu am yërmande ci population yi ci xale yi ne léegi danañ def politique de développement économique et social boo xam ne bii xale yi. dootuñu soxla di dem naan ñu ngay jéggaani lu ñu soxla ci liggéey fii danañ ko am parce que ça va être organisé question d'organisation la développement c'est l'organisation de l'État. Mhm. mooy am yërmande am gis-gis ne bon on va développer le pays. par quoi économique boo ko jëlee lii développé réew oh, c'est très simple mm. y a que trois secteurs mm. en général le primaire et ce sous-secteur agriculture sous-secteur élevage sous-secteur pêche le secondaire c'est les industries mm. or que pays bu développé bu la ci kenn nax industrie moo koy développé moo koy développé révolution industrielle industrielle euh, on a en somme trois types d'industries Euh, les industries des biens de consommation, de substitution aux importations, les industries de production des biens, mm des biens de production, mhm. c'est-à-dire la technologie qui permet justement de créer les portables, de créer les, les, les, les ordinateurs, etc. etc. C'est une industrie. Et les industries extractives, mm maanaam les mines, les mines, les richesses, c'est des industries. Mhm. voilà mhm. donc lii mooy développé réew nga xam ne Bon, c'est une question encore de volonté et de d'organisation gouvernementale au mmh. niveau politique de développement. Mmh. mais hmm. mais mais tey jii Sénégal naka la mën a génnee. Euh, ci crise hmm. euh, économie bi nga xamante ne am na lié à la Covid 19. naka la mën a relever woo. bon waaw c'est très simple euh, bu ñu waxantee dëgg le gouvernement parce que actuellement dëkk bi sooxe na. waaw on est à terre. waaw waaw waaw bon c'est normal on peut considérer c'est une phase de transition. Mm-hmm. jaar jaar la rek. Mm-hmm. mais le président Macky a pris quand même il a une vision. depuis même avant l'arrivée de la pandémie mm -hmm. il avait proposé le PSE le plan Sénégal émergent boo ko c'est uniquement vers une politique de développement endogène globale et durable mm -hmm. qui va entraîner donc euh, tous les secteurs prioritaires de base la santé l'éducation les transports la sécurité l'assainissement etc mm -hmm. etc il s'y ajoute que yàlla mi dara teewul indil Sénégal xéewal yoo xam ni personne si s'y attendait mhm. mooy le gaz et le pétrole les zircons et cetera et cetera yooyu yëpp c'est des c'est des c'est des matières premières yoo xam ni Sénégal mën nañ ci jóge mhm. daal am beneen maanaam am na ndaw récemment sax ñu ngi gis ni ci rapport ANSD euh, nekk na population boo xamante ni Euh, jeunesse bi moo dominé am na ressource comme ni nga ko waxee pétrole gaz et tout or am nañ tamit euh, assez de surface kon lan moo manqué Sénégal pour mu parce que mun nañ ne pratiquement am na uh-huh. lépp pour mën a uh-huh. développer uh-huh. lan moo tax ba léegi munuñ dem waaw li manqué mooy une xam nga booy développer réew c'est un processus c'est un processus qu'on appelle xam nga entreprise yemul ak état état moo gën ay entreprise mhm. comme par exemple Rewmi FM c'est une entreprise c'est une entreprise mais pour pour mettre Rewmi en marche vous allez peut-être faire des projections sur trois ans peut-être mhm. bi ñu ko initier di mettre en place tout le programme peut-être que booy xool cycle bi bu matul trois ans jege na ko alors un état demande beaucoup plus de temps un état pour le développer il faut au moins neuf ans mm -hmm. il faut neuf ans alors donc maa ngi doon wax ma ne avant Covid bi ñëw Macky avait déjà mis en place le PSE. Mhm. C'est une volonté politique d'apporter un changement par rapport à ce qui était là avant. Mmh. Personne n'a de PSE. On l'a pas plan entendu. Sénégal émergent mais boobu ba léegi dara émergé wul. wa non wa non depuis 2012 ba léegi. moom la wax c'est un mhm. processus. on ne peut pas. il est à son deuxième mandat. oui oui non il est à son deuxième mandat mais mais dara bougé wul. non non c'est-à-dire qu'actuellement mhm. de concrétisation de toutes les idées qui ont été lancées. l'exemple majeur, mm -hmm. la politique d'industrialisation. Il a dit cap sur l'industrialisation. C'est ça qui développe. En industrie. Bon, mais les industries, justement. Euh, tey boo demee tey dans toutes les régions du Sénégal euh, le ministère de l euh, le ministère de de de l'industrie euh, des moyennes et petites entreprises est en train justement d'abattre un travail énorme dans l'implantation des sites industriels non seulement de Diamniadio vous avez entendu en parler mais dans toutes les régions du Sénégal actuellement il y a des sites industriels mmh. à Tambacounda à Kaolack à Ziguinchor à Saint-Louis mmh. à à à Diourbel à Thiès euh, ou encore à Bambey mais il y en a sur l'ensemble du territoire on est en train de loger des sites des industriels sites industriels oui euh, avec euh, une éventualité maintenant de spécialisation de chaque région ce qu'on appelle les dotations factorielles de production régionale on a une politique de décentralisation régionale. Mmh. Et si ajoute maintenant que dans chaque région, on va identifier son potentiel économique mmh. pour lui dire voilà yow lii ngay def defal industrie boo xam ne bii ma jox exemple rapidement euh, wax naa fi léegi le secteur primaire. Mmh. pêche et sous-secteur élevage élevage et pêche bu ñu jëlee euh, tey ñu jël élevage xam nga les industries de peau et cuir par exemple. Mm-hmm. tey boo demee Seras Seras bi mhm. bés bu nekk ñu rey yi nag. am déet ak i xar ak i xar ak bëy ay bëy ainsi de mhm. léegi nag der yooyu bu ñu leen feesee ba pare der yi qu'est-ce qu'on en mhm. boo demee foofu nga taxaw xool da ngay observé ne bon yi ñu ngi koy fees weer ko euh, deux jour trois jours après nga gis benn conteneur ñëw taxaw ñu jël der yi ñu wow weeroon yëpp ci naaj bi lem ko dugal ci conteneur bi yóbbu quelque temps encore nga gis benn conteneur bu ñëw ñu importé ko lan moo ci nekk ay meuble en cuir ay dàll en cuir ceinture en cuir ceinturon sac en cuir yére en pantalon en cuir voilà mais est-ce que vous ne pensez pas que loolu matière première yooyu ñu yóbbu ñu mën nañ ko transformer fii et on a une région boo xam ne bii ils sont spécialisés ngay Mékhé yàlla moo def barke ci seen loxo mhm. les artisans de xaw ma ndax dégg nga leen ñu wax mhm. boo leen joxee der ñu def ko mhm. mais donc Ngaye et voilà donc yooyu yëpp war nañ ko mën a développer. dañ koy def. Mhm. on a mis le sites industriels de transformation de substitution aux importations on va exploiter ces secteurs là pêche élevage bon damay jox ñaar exemple mhm, exemple bon euh, léegi jën yi dans le cadre de la pêche bi nga nekkee xale peut-être parce que xale nga man maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee jeune. Mhm. dañ daan fii boo demee port fii euh, ci Bel il la les conserveries du Sénégal. Mhm. dañ daan defar ay sardines yoo xam ne dafa neex. à l'huile et à la tomate. dañ ko daan jëfandikoo ñun je me rappelle famille yu bari moom lañ leen dikkee. Mhm. ba pare ñu ko exporter. Mhm. et ça des emplois. alors léegi on va relancer justement ce genre de d'activité industrielle de transformation yemul foofu nga dem par exemple dans les métiers à tisser les textiles Sénégal te yére yi ñuy sol yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp boo ko xoolee. bitim réew lay jóge bitim réew lay jóge et tout est fait à base de coton mmh. alors avant xam naa bi nga nekkee xale daan nga dégg ñu naan Sotiba Simpafric mhm. ñu naan Icotaf mhm. wala ñu naan Bata Bata justement mhm. voilà xam nga yooyu yëpp c'était des industries qui mais qui utilisaient pas mal de Sénégalais le chômage du temps de Senghor ça n'existait presque pas parce que tout le monde travaillait dans différents secteurs maintenant avec la politique qui est là euh, programmée par le président Macky Sall et son gouvernement, surtout le ministère de l'Industrie et euh, la direction générale de l'APROSI, euh, dont le directeur général est vraiment euh, quelqu'un de très vaillant, qui a des idées, qui a la volonté d'appliquer tout le programme du, du, président de la République à travers son ministre. Et ça, je peux témoigner. Mm-hmm. Donc voilà, l'idéal, il est là. Maintenant, c'est une Donc, Voilà, c'est une question de temps. Mmh. Et, et, je le répète encore, que les gens prennent patience un peu. Ils verront que d'ici un an, deux ans au maximum les choses vont radicalement hmm. euh, ñu ngi dégg ci euh, moment Covid 19 bi ñuy wax récession hmm. économique lan mooy récession euh, économique parce que xam nga. économie ça pose problème. dafa nekk lu fondamental lu si réew. nekk lu intéressant hmm. mais souvent termes yi ñu utiliser. lu ëpp ci askan wi. du ñu comprendre dara par rapport à à économie alors que. nekk na lu am importance loo xamante ni. askan wi war nañ ko xam dañuy dégg ñu naan. récession économique surtout ci période Covid 19 bi. Ah, lan ah. lañ mën a dégg ci récession économique xam nga xam nga récession. Mhm. du dara lu dul maanaam boo déggee ñu ne la lan mooy croissance économique. croissance mhm. économique définir ko dañ ne. Mhm. mooy l' ensemble des biens et des productions euh, d' une manière très soutenue. sur une longue <laughs> période en wolof pour mooy <laughs> maanaam jàppale euh, liy indi koom-koom mooy ñëpp àndandoo ci secteur boo mënti nekk mhm. di liggéey baykat yi mhm. nappakat yi tailleurs yi mécaniciens yi ñëpp tout le monde yaa ngi yëngu ci benn secteur mhm. effort yooyu yëpp nag boo ko boolee te njëlbeen ga ca fa muy dem di nga fa gis maanaam li ñuy wax impact positif yokkute waaw yokkute est-ce que comprendre nga parce que baykat bu bayee ba pare la mu bay béy mu jaay ko Sonacos wala beneen usine buy dafa diwlin. moom am na koom-koom. léegi nag moo xam nu muy def ak xaalisam moom moo xam. mais en tout cas mbay mi indil na ko xaalis. am na lu mu ko jural. am na lu mu investir waaw am na ci bénéfice. bénéfice. Mhm. loolu ci analyse macroéconomique mooy na koy saytoo mooy la ñuy wax lekkoon ba de Hayek mooy maanaam li ñuy bay yëpp gerte caaf gi dégg nga gerte caaf gerte bi mboq bi dugub bi sorgho même blé et pourquoi pas ñu saytu yëpp xool ñaata la ñaata ton la ñaata million de tonnes ak ñaata lañ ko jaayee loolu ñuy wax les courbes de Hayek. Mm-hmm. la loolu nag ci loolu la ñuy mesurer ak yeneen secteurs yi activités yi agricole industrielle pêcherie yëpp secteur yëpp ñu ne bon Sénégal am na croissance tant mais léegi pandémie bi dafa ñëw nag mu indi li ñuy wax contraction. Mm-hmm. contraction mooy loo xam ne di euh, mm-hmm. dafa. dañ ko bloqué. Mm-hmm. dematul. wala buy demat day dem di soox. est-ce que mm-hmm. bon contraction boobu bu yàggee ba yàgg ba yàgg. manque de production bi ak mm-hmm. manque d'activité bi maanaam toog chômage bi ñu bëri seen yàqu wàññeeku jaaykat yi suite sur une très longue on le sait pas. loolu mooy indi récession indi effondrement. yal ñu ci yàlla musal effondrement bon. maanaam récession économique musiba la ci réew. waaw ci réew bon personne ne le souhaite et puis sax du mën a am en quelque sorte dañ koy wax rek mais ça ne peut pas se faire parce que y aura toujours. Hmm. des, des secteurs mais qui vont compenser mais rythme bi ñu nekk nii bu ñu ko continuer mën na nekk. ah voilà waaw waaw ah, non enfin bon bon non c'est-à-dire que. c'est hmm. tout est question d'anticipation une fois de plus. Hmm. et de planification. xam nga gouvernement mooy mooy organisé de telle manière que y aura jamais de rupture dans l'activité maanaam. on peut réduire danañ wàññi maanaam ay quantité mhm. euh, su cent travailleurs par exemple nga xool mhm. mais bon mhm. euh, vingt quatre heures la ñëpp war a liggéey mais léegi nañu def ba genn wàll gi liggéey douze heures de temps beneen genn wàll gi liggéey douze heures de temps xam nga douze heures de temps fois de ça fait vingt quatre heures dans la journée y a pas eu de rupture parce que ñii liggéey nañ ci suba ñii liggéey ci ngoon gi yaa ngi may déglu bon question d'organisation rek la donc il y aura jamais de dans les activités il y aura toujours quelque part des activités voilà maintenant boo mënee bu ñu d'accord bi dañ koy wax nii rek mais gëmoon ni Covid bi mën na ko andi. waaw mais si non mais bu yàggee bu yàggee c'est-à-dire parce que déjà déjà Covid bi am na un an. et waay waay waay d'accord bon c'est-à-dire xam nga xam nga bi mu ñëwee yàggul bi mu ñëwee yàggul. léegi nag il faut il faut du temps léegi pour ñu analyser pour ñu xool avec les données statistiques. Mm-hmm. ñu xool yan yan différence la indi ci courbe yi. Mm-hmm. parce qu'il y avait des courbes d'évolution léegi nag il faut ñu xool depuis que pandémie mi ngi fi lan la affecté yan secteur la affecté ñaata la ko affecté voilà est-ce que comprendre c'est des mesures c'est des analyses des études qu'on doit faire mm -hmm. mais comme ça dans le tas dans l'immédiat on ne peut pas le faire il faut ab diir ñu xool modification yi am entre mm-hmm. am entre daaw euh, ak mm-hmm. ci yan secteur la gën a touché mm-hmm. fan la gën a laal fan moo gën a sooxe s'il le faut ñu indi fa ay correction xam nga yaa ngi ko wax léegi dans le domaine de la santé vaccin yi ñëw na. Mhm. dinañ ko laal léegi. <laughs> dina ñëw si vaccin yi. waaw mhm. bon euh, bon ma anticiper rek. Mhm. rapidement bon ça dama bëggoon joxe foofu ne bon loolu c' est une parce que deux cent mille euh, kii la ñu wax deux cent mille. doses. doses la ñu wax mais l'idéal dans un premier temps ñëpp ñu ngi dégg ñu ne pandémie bi euh, effectif population bi muy gën a laal du xale yi. mais mag ñi la. mag ñi lay gën mais dina ñëw léegi si si si. Euh, Covid si vaccin yi. bala ñuy mélanger un peu de. Euh, ñu wax ci économie ba pare. léegi lan lañ mën a dégg parce que sànq sax li ma bëggoon relancé moom mooy. Mhm. Euh, souvent gouvernement bi dafay taxaw fa gëdënam ne am nañ croissance tant de pour cent ainsi de suite mais da ngay gis ni ñenn ñi dañuy wax ni. Mhm. croissant kenn du ko croissance plutôt kenn du mhm. ko lekk. et puis croissance boobu gouvernement bi da koy wax rek. mais askan wi. mënuñu ko yëg. lan moo waral loolu. bien waaw xam nga. pas si jamono bi parce que actuellement dañu nekk ci crise économique. mais en mhm. un donné di nga gis gouvernement bi di wax Sénégal am na croissance tant de pour cent. Mhm. mais croissance boobu euh, jamais askan wi yëg ko lan moo ko waral. waaw pour wala ña koy yëg une minorité. lay nekk pour pourtant askan baa ngi koy yëg. ci naka cest que euh, ni ñu ko yëgee. Euh, c'est pas c'est pas. wala ñenn ci askan wi ñoo koy yëg. wa bo non bon ak gis-gis. Mm. mais boo mu bàyyee rek ma expliquer pour tout pour nga xam quoi. pour ah. nga comprendre. waaw bon euh, xam nga boo déggee ñoo ne croissance euh, euh, la croissance àllarba bii passé. Mhm. Macky Sall def na président bi def na conseil un conseil présidentiel. Mhm. mais yan yan mesure la ci wax. Mhm. nee na nee na nañu gaaw ñu xool naka lañu ñuy organiser pour partager alal bi nga xam ne bi pétrole bi ak gaz bi dana ko indi. xam nga moo ko wax. Mhm. donc am na yéene moom pétrole bi ak gaz bi ak yeneen bu ñëwee. Mhm. ñu xool naka lañ koy distribuer ba sénégalais bu nekk. Mhm. la mu ci war a am ko. Hmm. c'est faisable. wala ñoom ñu séddoo ko. non duñ ko séddoo. Hmm? duñ ko séddoo est-ce que doo nekk minorité bi rek encore. non non non non non non ça ne peut la minorité parce que xam nga loolu. minorité bi mooy ñi ñi nekk ci kaw rek. xam nga wax ju rëy la. président ay ministre ay DG ci nguur gi. xam bu demee ba engagé waaw. Hmm. xam nga bu demee ba engagé. sa parole. en tant que président ñëpp di ko dégg. mu ne seet leen ban système la ñuy jël pour partager les richesses. mooy engagé na volonté hmm. Sénégalais yi fu dofuñu dégg nañ ko. mais pour partager les richesses. waaw non kooku dafa technique bu ñu koy. defee est-ce que dina équitable. waaw mais si ben justement dana hmm. équitable. Hmm. war na mën équitable parce que technique la. science économique boo ko jàngee tey ñu ne la la courbe de Otto Lorenz Max Otto Lorenz ou le carré unitaire c'est une science exacte nga xam ne bu ñu ko appliquer ni mu waree dañ leen naan la euh, la distribution est c'est un diagramme évidemment bon amu fi tableau pour <laughs> m'expliquer loolu mais kooku buñ sa tolloo buñ ko defee sénégalais bu nekk dina war a gis la mu war a am parce que population bi xam na ñaata la jaaxaluñ kenn. Hmm. tu as seize on est maintenant à seize millions. de hmm. bi ñuy partagé. Hmm. mais immédiatement tu utilises le carré unitaire de Max Otto Lorenz avec le coefficient de Corot de Gini pour ñu xam sénégalais bu nekk. ku nekk fengaloom bi ñaata la war a am kooku mën nañ ko saytu en un nga xam ne léegi dañuy déterminer mhm. le euh, le produit par par tête d'habitant mhm. par tête d'habitant ñu xam ne annuellement peut-être loolu bu doxee incha allah ci kantu ñàll Sénégal bu nekk yaa xam yaa ngi liggéey liggéeyu di nga war a anam di nga mën a am par exemple quinze mille dollars quinze mille dollars boo ko convertir en CFA ñaata la mhm. donc ndey kumba dana am ndey kumba dana am millions yu bari. am déet. mais est que danañ ca jot. mais dinañ ci jot parce que question boobu la ñëpp di ah. di di posé wu. Euh, am nañ ay ressources mais est-ce que ressources yooyu buñ ko exploité. Mm. est-ce que sénégalais yi danañ ca jot comme ni ñu ci war jotee comme yow ni nga ko waxee. Euh, peut-être loolu beneen euh, débat la. Mm-hmm. tamit dinañ la laaj ci beneen ponk bu soxla actualité bi parce que temps bi bareetul. Mm-hmm. te foog ñu aborder ko. Mm-hmm. di affaire Ousmane Sonko nga xamante ni actuellement ñëpp moom la ñuy waxtaanee. ban jàngat nga am ci affaire Ousmane Sonko. mi mhm. demoon ci ab euh, salon de beauté di fa maase wu bañ jiñ ko fa viol. Mhm. Euh, ñenn ñi ne euh, Ousmane Sonko waru woon dem ci lieu boobu ñeneen ñi ne maanaam c'est un complot politique ñi ci nguur gi. ñoo ko mhm. piégé. pour yàqal ko taqal ko pour nasaxal. wala saboter candidature am ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre parce que gis nañ ni pratiquement président Sall éliminé na adversaire politique yi fi nekkoon yëpp. desul ku dul Sonko. voilà mhm. instant bi euh, il faut éliminer le soldat Sonko ban jàngat nga am ci mbir mi. Mhm. Euh, Sonko moo jàdd wala c'est un complot politique. bien xam nga question boobu. Mhm. ah wax fa dëgg yàlla pour mu wax ci nag du ci xuus xuus bu. lu tax doo ci xuus. non euh, xanaa doo sénégalais. non non je suis c'est que dafa am lu ma évoqué teg ko sama kanam mooy lan. dama jàng. man li may gis nii macha allah yàlla na yàlla xeb dool yi micro voilà. Euh, je suis un fervent musulman. Mhm. un talibé de surcroît. donc dafa am loo xam ni sama conscience may na ma ko. Mhm. ak loo xam ni sama conscience mayu ma mhm. jàng ci boroom xam-xam yi ko mel ni yonent yàlla insa doon na wax ne ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé am déet yonent moo ko wax de. te loolu mu wax ci bible bi gëm naa ko. waxi yàlla aussi dama koy gëm mhm. nañu màndi màndu ci koo xamul mhm. man dëgg-dëgg rek laa ci am te manuma diriger conscience ma censurer nit ne lu tax mu def lii pourquoi mu def lii sama xam-xam ma xam ma yeggu fa damay màndu damay ragal xool sama diggante sa borom maanaam loolu Sonko la engagé ba évidemment et sax li tax sax manuma cee jokko wax man je suis un républicain je respecte les lois et les normes il paraît que le dossier est en instruction. Mm-hmm. mais dañuy wax ñu ne dossier bu nekkee institution. kenn waru ci wax kenn waru ci wax justice def justice def liggéey. mais est-ce que loolu sénégalais yi xam nañu. ba mais j'en sais mais man à niveau. man loolu laa normalement sax dossier bu nekk en justice. avocat ba warul génn di ci wax. ci wax ah, su paree la ca war a wax. dans les normes. oui parce que man na créer li ñuy wax ay entachement de nullité. Mhm. voilà avocat boo xam ne bii on t'a mhm. commis nga toog di wax rek ci loo xam ne lii c'est pas encore instruit. ma mhm. ah, man day du ko conseiller mi léegi nag yàlla moo xam. ah Sonko citoyen la. xale bi citoyenne sénégalaise ñoom ñaar ñëpp ñoo yem sur le même plan d'égalité du point de vue droit d'équité et de justice bon ñi nga xam ne ñi seen xam-xam màcc nañ ci liñ ko tuumaal bés buñ ko prouver mais ñoom seen conscience digganteem ak seen borom lu ñuy def ñoom ñoo ko xam man wax fa dëgg yàlla. Mhm. du ma ne tooy na du ma ne wow na. Mhm. dama ciy màndu. da nga ciy màndu. loolu defe naa war nañ ma ko mën a. mais fi soo ko dem yow ku la bàyyi woon di nga fa dem. fa fan la. salon de massage fañ ko ji ñuy viol une fois de plus encore parce que nee nañ Sonko ak. Euh, gradam en tant que un présidentiable. un député troisième à l' élection présidentielle deux mille dix neuf. koo xamante ni. Mm-hmm. Euh, actuellement ñëpp jàpp nañ yaa war a daane nguur gi. comment se fait-il muy fréquenter ces genres de lieux nga xam ne. même bu mm-hmm. fekkente ni la ñuy yaakaar amu fa am na. étiquette bu ñu fa taf. Mm-hmm. lan moo tax muy fréquenter ces lieux ba lii fekk ko fa tey. waaw xam nga dama la léegi. ji mën a la man yow loolu doo ko jugé. no dama mais su doon yow di nga fa dem wala doo dem. non bàyyi ma wax. <laughs> j'évite d'être de de m'ériger en censeur. Mhm. ou en directeur de conscience mooy lan. ne naan ne man damay mandu ci doomu aadama. Mhm. mais li ma jàng mu wóor ma ne lool la affaire yi war a demee. boo nee politique politique boo ko déggee. Mhm. c'est un terme no mais ñun suñu jàng may nañu ñu ràññee ñaari forme de politique. une politique positive et une politique normative lan mooy politique positive boo xoolee ci nouvelle ordre mondial bi américain yi euh, politique positive boobu mooy dañ koy def maanaam pour seen intérêt crypto personnel les multinationales système ultralibéral cap amuñu valeur de jugement sur l'homme nit seen yoon newu ci na xiif na mar c'est pas le problème ñoom li leen yitteel mooy la ñuy am d'une manière positive moom la ñuy wax politique une politique positive. Alors, une politique normative, qu'est-ce que c'est maintenant mm -hmm. C'est une politique qui repose sur quoi Sur l'éthique, mm -hmm. les valeurs cardinales humaines, la morale, l'intégrité, la probité, mm -hmm. euh, la justice, etc., euh, etc. mais loolu politique boobu moom la ñëpp di ñaan maanaam ñu ñu jiite appliqué ko xam nga loolu bu amee rek euh, te dama dégg ñu naan jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm mais jàmm jàmm yow na ko comprendre. c'est la paix. Mm Tout le monde aspire à vivre en paix. Et cette paix, elle nécessaire pour l'humanité, pour l'homme, pour la société, pour la famille, pour le quartier. Mhm. paix boobu dafa nekk lu am solo mais boo ko xoolee au fond dafa am ci lu mu tegu. ci lan la tegu maanaam. jàmm dafa am ci lu mu tegu. Mhm. muy dëgg la vérité. Mhm. fu dëgg am jàmm dana fa wala bu xamaloo li ma lay bëgg wax fii mm-hmm. jàmm boo ko bëggee nekkal ci dëgg nekkal ci dëgg di def luy dëgg di wax luy dëgg boo ko defee rek jàmm am mais yal na yàlla mosoo ci safaan ba donc je dis une fois de plus que je ne fais pas de morale je ne suis pas censeur ni directeur mais mais tontu woon ba tey de ña fay dem ña fay dem non yow di nga fa dem wala doo fa dem fa soog ko dem man lan laa fay uti waaw jeex na tontu nga ma man personnellement fa dem waaw jeex na parce que newul sama yittee man je suis un sportif Hmm. su ma naree def ay massage mais xam naa ni ma koy def sama <laughs> kër laay toog doo samay abdou doo samay pompe <laughs> jeex na jeex na tontu nga ci ci ci laaj bi voilà euh, beneen ponk gis nga euh, mbirum Sonko yéen a fi hmm. fitna hmm. Euh, wax nga ko léegi fitna am na fii am nañu jot a révolté annoncé ay manifestation gis ni gouverneur bu Dakar sax génne na benn décret ne dañuy tere jaay essence ku dul yor moto wala oto ainsi de suite c'est pour peut préparer préparé wu euh, ci éventuel ay soulèvement ainsi de suite mhm. euh, ban jàng am ci loolu le fait que euh, dem réewu Sénégal fi mu toll mhm. ñu gis ni ñu ngi xaw a nasaxal wala ñu ngi nasaxal li nga xamante ni moom mooy démocratie bi ban jàng nga ci am ku wax yenn kàddu yi ñu tëj la ku manifester ñu jàpp la tëj la ainsi de suite ñi fi des as néew di révolté wu mhm. dañ leen terroriser carrément lan nga ñu ci mën wax une minute rek deux ñu dem ci vaccin loolu aussi li ma ciy wax mag mu ne waxoon naa ko moo gën mag mu ne xamoon naa ko. Mhm. Euh, moi je suis foncièrement ancré sur les valeurs humaines cardinal wax naa la ko une je suis mhm. un croyant. Mhm. te donc euh, li ma gëm mooy que nit ku nekk da ngay assumer ses responsabilités. je veux dire par là que le président Macky Sall il a été élu au suffrage universel nous sommes d'accord. beaucoup de choses lui en wolof waaw. affaire yu bari. dafa wekku ci mbagam. moo ko war a d'abord. parce que dafa am fonction bu mu war a def une fonction réglée obligation la moom moo war a indi stabilité ci réew mi indi sécurité indi économie bi indi koom-koom est-ce que te loolu loolu loolu la ko yàlla natoo. mais dama ne bi baax na li ñuy def man. xam jàpp ni su ma ko mënoon conseil su ma ko su ma ko mënoon conseil xam nga moo koy wax. monsieur le président apaisé. poser les conditions d'apaisement et d'équilibre dans ce pays. Mm-hmm. na fi andi jàmm. instaurer le dialogue partout. Mais la paix président Sall jàmm bëgg ci dara. paix bon man une fois il faut nga comprendre moi aussi. Mm-hmm. yow nag da ragal nag. non non non ragal man lu may ragal. Mm-hmm. ragal lan lay ragal. Ah, régime bi. mais non mais non non non déggoo fa may waxee mais jàpp nañ ni li Abdoulaye Wade liggéeyoon ci démocratie yëpp. Ah. Macky Sall mi ngi koy yàq. loolu d'accord nga euh, si waaw wala déet. non là aussi je parce que bu fekkee président Sall nekk na non je ne suis pas hmm. parce que Sall bu nekkee président. <laughs> Mhm. ak euh, c'est parce que euh, Macky Sall ya euh, comment dirais-je Wade yaataloon na euh, les gens manifester librement dañuy exprimer wu ainsi de suite yaatal gi ba moom mu am chance. Mhm. Euh, nekk président ainsi de suite. Mhm. gis nañ manifestation yi am yëpp ci période boobu 2011. Mm -hmm. 2012 mais gis nañ ni Euh, le président Sall lépp la tëj mënatul sax may xale yi ñu manifester. Mhm. chaque jour ñu jàpp ñoom Guy Marius Sagna tëj. Mhm. boo toogee ci tele wala ci rajo ñu ñëw jàpp la tëj la. Mhm. wala ñu lay terroriser yow ban jàng nga ci am démocratie bi yàqu na wala yàquwul ñu dem ci vaccin yi temps bi bareetul. Euh, bon waaw mais la démocratie man euh, moi je suis un, je suis optimiste je me dis que à chaque moment. le président de la République peut retrouver euh, enfin le sens de l'équilibre hmm. am na lu mu yàq ci démocratie bi wala amul lu mu si yàq euh, waaw xam nga da nga indi léegi abla Wade donc tu m'obliges à faire une analyse comparative hmm. entre Ablaye Wade et Macky hmm. les périodes diffèrent les gestions mais Wade moom ñëpp d' accord nañ ñi liggéey na si ah, démocratie waaw non bon je suis pas tellement d' accord ah man am na lu may objecté ci ci ci ci ci ci régime Ablaye Wade ci lañ yaatal yoo xam ne yii télé yi rajo yi bu du ko def Bon, seulement, ça appartient au passé. Mhm. Mais euh, je ne vais pas lui donner un quitus comme ça à cent Non. am na lu dox loo xam ne lii. mais lan moo tax président Sall di di tere nit ñi di manifester. wa mais jàng nga ci am. xam nga laa aussi. xam nga laa aussi manifester pacifiquement. am dafa jëf samay pancarte marché wane ko. quel est problème. waaw mais Kumba il faut nga nangul ma tam. Mhm. benn mbir. waaw xam nga fi président Macky Sall nekk ma nekkuma fa. mais man li tax nangu woo joxe sa avi ci démocratie bi moo ah, ma jaaxal maa ngi koy wax. noo ko gisee yow. ñu maa la koy wax on a juste deux trois minutes. je pense que jusqu'à présent. Hmm. il a pas péril en la demeure. la démocratie est là. fa mu nekkoon ba mi ngi fi. on ne peut pas comparer le Sénégal actuellement nii du Congo Brazzaville c'est quasiment impossible li ñu sañ a def Congo Brazzaville kenn sañu ko fa def. wala au Togo par exemple. instant bi ñun dañuy. wala au Gabon fi ñu tolloon ci Abdoulaye Wade. Macky war caa yokku waaw un président jeune war ca yokku ne après les indépendances mais ma cay wàññi moom moom la ñu gis. mais la démocratie elle est là. Hmm. elle se pratique elle se pratique la preuve elle se pratique les populations bougent les gens expriment leur opinion. on ne peut pas les garrotter wax. Hmm. ñu ngi xultu di ñaxtu. mais c'est une de démocratie waaye ñu ngi jàpp di tëjee. waaw mais bon bon c'est une réaction. léegi beneen question. réaction la mais mais boo xoolee ñu jàpp di tëj mais ci fan lay mujjee en général wax ma. libéré. et, <laughs> et alors mm. donc c'est une léegi dernière question. Euh, oui. vaccin Covid 19 yi ñëw na. deux cent mille doses. Mhm. ñenn ñi sax nee nañ c'est insignifiant ci population wu. million euh, 16 millions de suite. ñu gis ni bu ñu xoolee fiche euh, personnes prioritaires yi nga xamante ni moom la ñu war a vacciner. Mhm. Euh, personnel de santé bi mu ngi ci biir euh, les personnes âgées tamit ñi ngi ci biir ban jàngat nga ci am. waaw yow pare nga yow ñu vacciner la. Euh, ñu bëri dañu sceptique par rapport moi scientifique hmm. bu situation amee je me dis bon hmm. comment mm. a été fait hmm. sur quels paramètres sur quels facteurs on s'est basé pour faire telle chose immédiatement ça que au niveau du ministère de la santé xam nga ñoom ñoo def commande ils m'ont pas consulté j'ai pas donné mon avis xaw ma nu mu mais yow d' accord nga si nu ñu dressé déjà les deux cent mille vaccins. non non à mon avis personnel santé bi personne âgée. ça me paraît insuffisant. Mm -hmm. parce que au préalable ou au départ, est-ce que on a fait une étude pour recenser par exemple les effectifs prioritaires mhm. ñaata personne troisième âge personne deuxième âge adulte ñoo soxla vaccin bi mhm. sur seize millions d'habitants est-ce que ça a été fait ou pas j'en sais rien du tout xaw ma ci mais noonu lañ ko war a saytoo def une prévision mais bon on a besoin sur seize millions d'habitants les populations prioritaires on a peut-être euh, 3 millions de personnes du troisième âge, mm -hmm. euh, 1,5 million euh, du quatrième âge, mm -hmm. euh, et puis les adultes, bon, on a peut-être 5 millions. <laughs> Voilà, et commandé en, euh, en, fonction euh, de cette quantité ou de ces quantités. Mm -hmm. Bon, mais 200 000, ça me, paraît, ça me paraît insignifiant. mais yow ku la ku la ku la bëggoon vacciner di nga nangu parce que ñu bari dañu sceptique par rapport au vaccin juste une minute ñu tàggatoo. bon là aussi tu tu là aussi tu ôtes ma conscience parce que moi. moi je suis est-ce que Idrissa pare na pour ñu vacciner ko. c'est simple la question. ba ça que personne âgée yi la ñu 60 euh, ans et plus la ñu. visé ak personne de mhm. personnel santé bi ainsi de suite. pour le mhm. pour euh, ci au euh, ci moment bu njëkk. déjà mais mais mais. pare nga yow. oui mais je suis prêt si si mon médecin me dit que bon y a pas de risque pour mm. toi. Mm. de réaction secondaire machin mm. bon ok y a pas de problème on s'est vacciner. ah voilà. ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi. comme que yow pare nga pour vacciner wu. waaw mais yow dem la ndax yow pare yow da non man pare wu ma pour vacciner wu je suis bien portante euh, voilà pare wu ma pour vacciner wu. loolu moom leer na. yal mhm. nañu yàlla may taw feex ba mhm. duñ ko soxla. Mhm. voilà bon maa ngi nuyu euh, maa lay gërëm euh, Kumba. vraiment on a passé des moments très agréables. au maximum à toutes les questions. que mais da nga xaw a ragal nguur gi de. da nga xaw a ragal Macky Sall. non non mais <laughs> non non du question ragal. xam nga mhm, mhm. xam dafa am lu ma gëm rek maanaam président. Mhm. yàlla daf koy nattu. donc ma foog ne kuy jiite réew dañ ko war a dimbali. jàppale ko maanaam lui donner un soutien pour xelam dal. mën naa ci joxe exemple yu bari xam nga tey. temps bi jeex na waaw waaw rapidement <laughs> rek. xam nga tey on doit le soutenir. parce que dafa am nit ñi du ñu xam lan mooy tegu ci moom. comme mm. pression. Mm. yàlla xam ne am na jiite réew yombul. jiite réew yombul. Mm. bitim réew am na ñu koy teg pression vingt quatre heures sur vingt di ko tiital te nit la. Mm-hmm. man na dem ba ay moment de panique. Mm-hmm. jaaxle bu gëstoo du gis kenn il est là face à situation et devant Dieu. Mm-hmm. mais donc baaxoon na yenn say population yi mu yëg ne les populations. sont derrière lui ñu ngi koy soutenir ça lui redonne du courage et ça c'est important. rapidement parce que Ablaye Wade li tax mu jóge fi xam lu tax. temps bi jeex na tàkk dafa attaqué woon <laughs> dafa attaqué woon France. Mhm. attaqué Bolloré. Mhm. gars yi jógal ko. ça c' autre chose. c' est ñu ngi koy euh, remercier bu baax a baax Idrissa Ba nekk économiste consultant expert de la mondialisation et du commerce international nekk tamit euh, analyste géopolitique économique international ñu koy remercier euh, bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi de 10 à 11 heures di remercier Mamadou Diaw. Diallo bi nekkoon ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a déglu émission bi ci euh, www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf